mën nañu ni frontière la boo xam ni dafa am fleuve tey jii ci 4 avril bi ki nga xam ne moom mooy commandant zone militaire numéro 4 di colonel Simon Ndour def na waxtaan feggook ak taskati xibaar yi conférence de presse bi nag ngir wane ni rek ren euh, juróom-benneel fukki at muy anniversaire Sénégal moom boppam dañ ko màggal ci sobriété daanaka bëriwul ay yëngu-yëngu ci noonu nag dellusi na ci yaatu yaatu soldaar si pexe yi ñuy def ngir. fagandiku ci feebaru coronavirus ak itam frontières yi tiitaange yi ñu ci doon am ci côté Falémé bi ak ci côté route nationale. passage officiel passage officiel moy yoon yu normal yo xam ne foofu la nit ñep wara jaar ñoo ñu généralement gendarmerie ak police ñoo leen koy téye ñoo koy téye ñun ndax ci suñu patrouille dañu gis né effectivement amna yoon yo xam ñi dañ koy créer pour jaar fa surtout côté euh, côté est ak côté sud moy euh, côté Kédougou. muy frontière bu jógee Guinée muy frontière bu jógee Mali parce que actuellement frontière bu jógee Mali foofu la Falémé bi jaar Falémé bi actuellement mun nañ ko mun mun nañ ko jéggi ak tànk donc ci loolu effectivement ñu ngi def euh, def semaine passée la ñu mujjee def beneen normalisation foofu qui est encore en euh, pour que lépp lu ñu fa gis passage officiel ku ñu fa gis muy jaar ñu arrêté ko mais aussi ñu mën a wax autorité fii ak fii ak fii ci jaar

Adja Naba, mom aussi nek au conseil collectivité territoriale mom andi nañu ay kit de lavage des mains ay kit produit détergent ay yo xamni dal duñ ko ëndé def ko dina jàppale askan wi bu baaxa baax. cest à que ça va tourner autour de 4 millions. voilà pour les appuis là euh, dañoo dañoo indi ay madar ay javel ay euh, euh, lave-mains ay bidon yoyu lañu indi voilà Euh, lu ñu bëgg mooy euh, aar nit ñi. lu xam ne sax suñu ñun suñu di village yi ak village gambien yi ñu ñoo ko séparé treize kilomètres la donc euh, mais ci treize kilomètres yi am na huit kilomètres yu xam ne kooku ndox la donc ndox boobu ñi ñi mën nañ ko pratiquer bu dee yoon amul ci kaw amul ci suuf nit ñi mun nañ jaar ci géej gi ñi am problème boobu ñu ngi koy dégg. nit ñi ñu ngi commencé di dugg ci pirogue pour dem doxee seen soxla. Eh, Moussa dama kontaan Mamadi Signaté laa tudd président des chefs de village de la commune de Neteboulou et président régional des chefs de village de Tamba donc euh, li ñuy def tey aw ma wax quoi sama xol bi dafa fees ndax kontaan demaa kontaan trop pourquoi demaa kontaan puisque maire bi ak euh, madame Djeneba Diallo.

feebar bi ñu naan coronavirus ci fàttali liggéey bi ñu ngi ci ànd ak suñu doyen caméraman di Amadou Diédiou mu jàppale ñu ci wàllub image yi montage ak réalisation jaajëf.